te jërë ngeen jëf comme nu nañ leen ziare waat leen bu baax amaat mbégte ak comme saa su nu ñu koy defee ci wasaare ak si waa Dakar Midi comme ni ngeen koy gisee nag ñu ngi fii si Liberté 6 di waxtaanee lan li nga xamante ne ni temps yi lëmbe na jamono juñ toll ni muy insécurité bi nga xam ne xew na ci réew mi reyante bi bëri na ñun nag comme ñun waa wasaare ak ñun waa mi Midi xew-xew bu am dañuy daal di wàcc si terrain bi gisee ak askan bi daal di waxtaan ak ñoom ñoom tamit ñu joxe seen xalaat ndax kat dama koy faral di wax seen mbégte mooy suñu xamante ne nii moo di Abou Boy bu gàtt bi fas yéene nag gisee ak askan bi daal di waxtaan ak ñoom ñoom tamit ñu wax seen xalaat ndax jotul tey waa Sénégal indiwaat li nga xamante ne nii moo di pen de mort ku rey ñu rey la ndax ràññee nañu ko fi mu nekk ni rayante bi bëri na lool lool lool Abou sama caméraman bi bu baaxee rek ma daal di dugg si biir marché bi gisee gars yi fas waxtaan ak ñoom Alsaan Alsaan tey ñuy waxtaane li nga xamante ni moo di insécurité bi nga xam ne nemmeeku nañu ko ci réew mi jamono yuñ toll nii lan nga xalaat ne loolu moo ko indi. mais insécurité bi moom ndoo réew moom bu ndoolee ñaar dafay bari day bari agression day bari jigéen yu jaay seen bopp parce que ndóol moo ko waral gis nga ñun Sénégal amuñu problème réew mu neex yor la parce que bariwuñ mais suñu état yi ñoo ñoo ñu dimbaliwul quoi jeunesse bi tey am nañ ambition pour liggéey mais mais état bi moo ñu dimbaliwul ci côté bu baree bari insécurité bi bëri na man ci bale bi laa dëkk damay gis loo xam ne damay yéemu violence yu garaaw ngay gis soo duggee ci biis yi ay violence dafay am insécurité yi rey yooyu dafa doy waar da ngay yow da ngay toog ba yàgg sax nga ni ñun ban Sénégal lañ nekk ak ni Sénégal meloon ay jamono ak léegi jam nit agressé nit yooyu daf fi bëri xam nga assemblée nationale nga gis violence yi fay am ñuy xeex saagante ndey président assemblée toog naan dangeen di fen di saaga yooyu yëpp di am ci dëkk bi bon te jeunesse bi genn wàll gépp bon na nañ na ma yàlla baal quoi nañ ma baal quoi mais ñu si baree bare ay kopp lañ quoi lu ñëw rek da leen di yóbbu koi ak phénomène yi am léegi lu xew Europe. xew yeneen dëkk yi fët fët mu ñëw Sénégal xam ñu jël ko quoi tendance bi affaire yooyu quoi daf ñu sonal quoi il faut ñu delluwaat ci suñu cosaan xam ñun ñooy kan ay sénégalais lañ ay de ay sénégalais lañ ay bañkat lañ dañoo am ay maam yoo xam ne dañoo bañoon ba Sénégal toll fii il faut jeunes yi xamaat seen bopp. mais yi ngay gis nii yëpp boo gisee góor jigéen yi ci dëkk bi actuellement nii lobby yi yu bëree bari mais ndool gu ëpp gi moo ko indi rek ah fii ñu bëri yor nañ seen i métier mais fayu ñu la man maa ngi suma métier mais gis nga maa ngi ci maa ngi fii di taxale waaw maa ngi taaba taaba parce que dañ lay liggéey loolu duñ la fay. ah waaw insécurité bi nag ni ma ko jàngatee mooy nekk ni gone yi léegi daanaka dañoo yaroo seen sago dañ nekk ñi nga xamante ni bii maanaam base ba ñu amoon moo fi réer guddi yi ñu toll nii moo tax xale yi léegi lu leen neex la ñuy def noonu daal laa ko gisee waaw loolu daal laa gis ne que ni buñ ci jógoon delloowaat xale yi ci yar yar mu njëkk ma. delloowaat leen tegaat leen ci yoon bu baax mi moom moo dindi insécurité bi fi nekk jamono jiñ toll nii daal. Abdourahmane tey ñuy waxtaane li nga xamante ni moo di insécurité bi nga xamante ne nii nemmeeku nañu ko ci euh, Sénégal jamono ñu toll nii ñu bëggoon xam rek yow lan nga xalaat ka ne loolu moo ko waral. waaw affaire insécurité moom vraiment nekk na loo xam ne ni fii Sénégal fi mu toll nii dafa violent trop bëri na trop parce que boo xoolee fi mu toll nii rayante yi bëri na et puis coow yeeg yi bëri na. te kenn mënul comprendre mais xëy na bu ma génnee ci sama jàngatu bopp mën naa ne manque de l'éducation la quoi parce que xëy na rôle parental ci la bokk parce que déjà bu doon eh, à bas âge éduqué nañ nit ñi normal kon xëy na du demee neen nii mais nag euh, xëy na nañ sant yàlla aussi tey moytu te it di wax ne nit ki eh, gaaw a tàng xol ak gaaw a xët mer xët-xët yooyu amul njëriñ. Mbaye tey ñuy waxtaane li nga xamante ne ni ràññ euh, nemmeeku nañu ko si Sénégal maanaam reyante bu bëri bi nga xamante ne ni xew na yow lan nga jàpp ne loolu moo ko sabab. non reyante bu bëri pour man ñàkk gu miti rek ak euh, série film yi ñuy seetaan ni comme as euh, comme yi ñuy seetaan 19h à 23h euh, yooyu nag li koy gën a joué yooyu ci la bokk parce que film yooyu amul lenn application benn bu buñ ci wane bu baax waaw bu baax mu amu ci vraiment parce que bu njëkk ba bi daan seetaan théâtre ay ñoom Babou Faye ñoom Makhoro Diagué affaire yooyu dañ la daan jox courage xam nga mais yii moom affaire war lan lay digal doxaan rayante affaire alal quoi te alal moom moog drogue yem ku ko gëmit rayante bi bëri waaw. parce que tey jii am na ñoo xam ne nii bu bu ñuy rey du ànd ak seen sago torog beeg sangara seeg waaw euh, buñ fi indi woon daal peine de mort yaakaar naa rey bi dina dina dina dina arrêté waaw. parce que nit koo xam ne deful la dara yaayam ak papaam yaakaar ko nga jël ko rey ko si noonu mu perte ah, yow nga yegale sa dund nga tudd nga tëdd benn benn benn dix ans génn. Hmm? nekk si sa dund léegi moom léegi après ay waajuram ñàkk ko loolu métti na loolu métti na trop waaw man de wax dëgg yàlla ak yoon bi buñ fi ni woon penda moor kon ray bi dana fa jeex dana fa jóge ah man de man de dama joom mi franchement sama xol bi dafa jeex tàkk rey yi bëri na léegi te lépp ma éducation bi rek la loolu la dañ leen éduqué wul éducation bi man la man sama xalaat bu gàtt laa loolu laa jàpp ne looloo ko indi parce que ñu bëri bu ñuy rey nit duñu ànd ak seen sago te xam nga ku tiim nii di ko jam ay jam yu bëri ça veut dire que àndul ak donc man éducation bi éducation de base bi daal man dama jàpp ne loolu la quoi man loolu laa ko jàpp franchement. ah insécurité bi ah doy na waa trop waaw parce que ñàq liggéey rek parce que ku xëy suba bu ngoon jot di liggéey moom yaakaar naa ne doo tal leneen soo wàccee dem tëdd nelaw rek ngay tal waaw insécurité moom yaakaar naa xale yi ñàkk liggéey rek amuñ luñ def ñoom loolu yëpp si la si ko waral si la bokk quoi. waaw. kon daal bu ma parents yi nga duut li nga xamante ne moo di baaraamu tuuma. non pourtant pas parents yi parents yi sax ñi ngi def li ñu mën mais daanaka jamono ji moo toll fu nga xamante ne bii xale yi maanaam léegi dañuy dem ak seen yëg-yëgu moom la ñuy def léegi kër yi kenn mënut a yar kenn ndax parents yi amatuñu jot daanaka. mais tamit am na éducation de base bu nga xamante ni moom lañ daan def ci xale yi looloo waral tey tey jii nii loolu moo fi nekkatut moo waral tey jii li fi am nii jamono ñu toll nii daal noonu laa ko jàngatee. non parents mais sa doom bu la euh, sa doom buy def naka su noonu doo ko yëg buy def naka su noonu doo ko bu génnee di foy doo ko yëg fi muy fekkaan doo ko xam ñu ngi yar mais peine de bi ma la wax fépp ñëwut raay bi dina continuer il faut il faut ñu indi peine waaw man Baye Fall laa waaw man suñ Moustapha Diagne mooy sama sëriñ moom boo demee dëgg la lay wax euh, képp nga xam ne nii jox nga si moom lim lay njëkk a tere mooy yàmba ak sàngara lépp lu nga xam day tàggoo sa sago dalay dala dala koy aaye waaw. non parant yi moom d' accord ñoo ñu bëri démissionné nan parant yi ñu bëri dañoo démissionné mais loolu lépp lu ko indi mooy ñàkk rek parce que man tey béykat la man sama baay da daan béy samay maam doon béy mais man maa ngi nii nangu ma béy léegi man est ce que samay doom ëllëg lan lan war a mën a dund ba man sama papa da daan béy ñun ñu dund ci at ak genn wàll presque parce que dañ doon dem ba dugub yi dañuy fekkante ci sàq yi comprendre gerte gi. bon sama yaay bu demaan ci luuma yi day jënd kecax bu doy géej ñëw xam nga teg bu defee dañ ciy dund nice mais léegi bëgg nañ petit pois bëgg nañ macarona bëgg nañ spaghetti bon bëgg nañ yàpp bu duuf affaire yooyu man sa papa xar daan jël xar ci gétt gi wala bëy ñu rey ko ñu lekk ci benn fan toogaat deux mois trois mois mu defaat noonu waaw. waaw d'une part am na waajur yoo xamante ne. defuñu leen war seen do seen doom d'autre part am na ñoo xamante ne mbedd bi leen moo leen di yar da nga yar sa doom ba mu màgg comprendre nga nga yow nga nga foog ne yow lu war lépp def ko alors que dafa génn mbedd bi yar ko loolu tamit am na da nga yar sa doom ba mu màgg mu génn fréquentation yu bon waaw c'est ça xam nga mu nekk ay délinquant yu bëri loolu la yu bëri dañuy dañuy yaroo yaroo seen kër. génn am ay fréquentation yu bon xam nga commencé dugg si yenn détails yi franchement. non parents yi waaw parents yi yaratuñ te xale yi tamit léegi amatuñ yar parce que booy léegi am nañ fit am nañ fit goo xam ne mooy loolu parents yi tamit dëgg la tamit parent yi parents yi da ngay gis parent boo xam ne tamit mën na yar dorom def si lu mu si war a def yëpp mu génn mbedd mi yàqu ko loolu yëpp tamit daf siy joué waaw doy na waa trop moom waaw. waaw mais parents yu bëri dañoo démissionné parce bu fekkente ni yow euh, sa salaire demeewul noonu nga yor ñaari doom yu jigéen yor ñaari doom yu góor en plus da ngaa luye yor ñaari néeg ñetti néeg war ko fay mais est-ce que yar bi war di nga ko def xam nga yàlla rek moo la mën a li nga am jëkkër nga am jabar joo xamante ni moo jabaru bañkat la mu dimbali la ci lool mais boo amee jabar jo xaw oyof tuuti tuuti tuuti rek say doom moom moom mooy loolu parce que actuellement nii boo gisee booy estaat tasee booy agressé ay doomu ay doomu jàmbur lañ yaa ngi dégg wax ji guddi gi jigéen ñi ngay gis ñu jaay seen bopp ci rii bi dañoo am day dañoo am baay xamul mu la kum doon sa sago boo juree sa doom danga koy jàngal mu nekk ci condition yu baax mais ndóol gu ëpp moo indi loolu moo waral parents yi yar gi ñu waroon a yar dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mënatuñ ko quoi. est-ce que jotuwul ñu indiwaat yi moom peine dafa yàgg parce que man waaw ànd naa ci dafa yàgg parce que peine de maanaam tëj la ba nga dee dafa dafa yéex parce que rey nit moom fi la fi nga reyee nit ki sa parce que man ça fait 15 pays en Afrique am na cas yu bëri dama koy gis gis naa ko toog naa ko ñu rey nit ka ko rey ñu jàpp ko rey ko ci kanamam tëral leen ñoom ñaari néew xam nga kon loolu dafa war a mën a nekk man dama cee ànd. parce que bu rayoon ñaari nit ñetti nit ñu nit ñi gis ko rek daan wàññi loolu quoi daan limité loolu. waaw parce que mooy atte l'islam waaw parce que tey jii nii état ak l'islam benn la sax waaw parce que li ñuy aaye l'islam da koy aaye euh, yamba ji nga xam ne day tàggalu sagalu euh, état da koy aaye l'islam da koy aaye sangara état da koy aaye am na am na milieu yoo xam ne dañ koy aaye foofu mais l'islam da ko aaye kon li ñuy jëfandikoo man yaakaar naa loolu moo tax rey mais bu ñu fi ni woon peine yaakaar naa ne rey dina jeex. waaw affaire peine de nag peine de dafa xaw a diis parce que bu dee ku rey ñu rey la dina nekk loo xam ne nii mën naa ne dina wàññeeku mais aussi tamit bu ñu xoo bu ñu jéemee toléré ñu ñu jéem a xool eh, man boog sama bopp mun naa ne ñu teg la ay charge eh, sanction yu diis moo gën sax ñuy def peine de mort quoi peine de moom vraiment dafa nekk loo xamante ne nii moom doy na waar quoi ku rey ñu rey la moom. man moom vraiment nekkul loo xam ne ni ànd naa ci quoi vraiment su ma sañoon du am quoi. ah Penda Mor ah man su ma sañoon moom nguur gi indiwaat ko mais tamit nekku na ñun luñ bëgg lay nguur gi di def nguur gi moom lu ko arrangé rek lay def. waaw suñ sañoon moom Penda Mor ñëwaat parce que loolu moom suñ ko defoon yaakaar naa dina wàññi rent bi si mbedd mi quoi ak si kër yi waaw loolu moom su ñëwoon dina baax trop waaw. mais ku rey dañ koo war a rey parce que yàlla ñun ëpp ñu yàlla yërmande yàlla moo ñu ëpp yërmande tam moom yàlla moo ni ku rey te tay ko dañ laa war a rey ñun ëpp ñu yàlla yër ma yërmande pourquoi nit ray bon après ñu tëj la quelque quelque ay ñaari at ñetti at ñu àtte la am ñu jug fee naan dafa am droit dafa am cër mais ki amul droit ki dafa am droit dafa am njaboot dafa am yaay dafa am papa dafa am jabar dafa am ay doom est-ce nga boo reyee bon. population bi ñoo war am fulla rek ah bu nit reyee def loo xamante ni da koo tay mais. balaa police di ñëw nan la rey. d'accord merci beaucoup. waaw jël ñaar ñëpp yóbbu ah. bu ñu ko war a def dafa yàgg franchement bu ñu ko war a def dafa yàgg parce que nit ñi sonn nañ ñu bëri ñemeetuñu génn yenn heures yi agression yi bëri na rey rey yi bëri na kenn kenn comprendre tur nu mu dem demee loolu la war a indi peine de mort ku rey ñu rey la dëkk yu bëri léegi looloo fa am mais tant ñu ngi seetaan lii ñii dee dinañ bëri lool parce que doy na waar daal. de a ña nga ñëw si ngoone mu defar amul benn problème. bërki démb rek dal na ma dama jël exemple comme sama bopp ci li may yëngu nii muy kalando yóbbu yóbbu naa benn waay ci monnaie rek 200 francs may wecc benn waay sama loxo laal ko tax mu génneel ma fetal mu ngi xew woon SDE fi nga xam ne fa la ñu rey woon taximan bi fetal la ma génne. mais teewul dama ko affronté mais affronté naa ko ci li nga xamante ni lu ñàkk pexe la parce que bu fekkonte ne dama teela a daw foofu mbaa ma teel a excusé su boobaa day ëppi loxo moo taxoon dès di début ma affronté ko mais teewul it nekkul woon sama sago carrément parce que fetal moom buñ ko génneele doomu aadama te yorul dèjà xel du dal mais nag lépp sant yàlla la parce que mooy li nga wax ne insécurité moo tax sax ma jox la exemple boobu mais nag nañu sant yàlla bu baax te xam ne yooyu moom vraiment mooy nañu gën a doole ñaax ñaaxante ñun rek suñu biir incha allah sensibiliser woon si ba nga xam ne day jeex. aca jërë ngeen jëf yaakaar naa ne nii lañ leen ko waxee woon ni ngeen ko doon gisee nag ñu ngi woon fii si rond-point Liberté 6 nag dak fas yéene woon nag waxtaan ak askan bi comme ni ngeen ko doon déggee ñuy waxtaane li nga xamante ne nii moo di insécurité bi nga xam ne nemmeeku nañu ko ci réew mi jamono yu ñu toll nii d'après nag ñi nga xamante ne tàllal nañu leen suñu micro ñii dañu dut baaraamu tuuma ñi nga xamante ne ñoo di parent yi nee nañu kat parents yi ñoo yaratul seen doom yi loolu moo tax reyante bi daal di bëri si réew mi waaye tamit ñii nañ xale yi dégg ñoo yaroo ak seen sago loolu moo tax ñuy def lu leen neex ñii tamit nee nañu ngóor gi war nañu tegaat li nga xamante ne nii moo di euh, peine de mort ku rey dañ la war a rey yaakaar naa ne yéen tamit am ngeen ci seeni xalaat bu ngeen amee seeni i xalaat rek commentaire leen ko ci suuf ndax kat dama koy faral di wax saa su nekk seen mbégte mooy suñu yite ba xew-xew bu am dañuy préféré ñun waa Wassare société ak waa Dakar Midi wàcc ci terrain bi gisee askan bi tàllal leen suñuy micro ñoom tamit ñu wax ci seeni xalaat ndax kat yaakaar naa ne ñëpp am nañu xalaat loo xamante ni war nañu ko wax yéen lañu fi nekkal merci beaucoup Abou sama caméraman bi jox leen rendez-vous ba beneen yoon incha allah bu naaj jaajëf